yëngootina ay sunu deret yëngootina sunu sidit yëngootina ñu jóg di way sang be safar terootina sunu deret yëngootina sunuy sidit yëngootina bu ñi jóge way sang be asalaamaaleykum mbokku internet Dakar midi ak wasaare ñamati mbégte ak kontaante naa ñu ngi topp li nga xamante ne tey mooy actualité màggal gi di wax ne demee saa su ne ñu ne ak mooy liggéeyu tedd bi nga xamante ne tey Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul liggéey na ko tey ñu ngi toog ki nga xamante ne tey mooy Cheikh Tidiane Niass mi nga xamante ne tey moom mu ngi ko fële ca Kaolack ñëw ci li nga mooy màggal googu a sëkk ak moom tuuti ñu ngi lay nuyu auzu billahi alhamdulilahi rabbil alamin wasalatu wasalaamu ala asrafi alxayri anbiyaai wal mursalin sayidil hujud wa alami sawat muhammad ibn abdillahi rasulillah wa man tabiam bi ihsan ila yawmiddin mbokki Dakar midi ak wasaare ñi ngi leen di nuyu ak mboolem fu internet nekk rek di ko jaar ci site internet yu uute nekk ci réew mi ak bitim réew teew ci gox yu fasantikoo yi ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu gannaaw ba ngeen tànnee lenn ci liy leeral jamono muy tolluwaayu jamono muy site internet di ko jaaree ci comme site yu ñu lim nii ñu ngi leen di nuyu ci touriste site yooyu ñëw fi ànd ak ñun fii ci Touba à 2021 ci màggalu Cheikh Ahmadul Bamba Xaadimul Rasul bismillah ñu ngi lay fay. Ah, jërëjëf ah, Cheikh Tidiane Niass li nga xamante ne tey ñu ngi koy wax ci lu jëm ci diggante Murit ak ak Tidiane dafa mel ne lépp benn la parce que gis nañ ne ngeen def seen délégation ngeen jóge li nga xam ne mooy Kaolack ñëw ci li nga xamante ne mooy màggal gi tey ah, ban yëg ngeen ñu am. waaye yëg-yëg gi ñu am mooy bég ak kontaan. ndax euh, njëkk tariixa jullit jullit mooy mbokkam njëkk tariixa di am ndax walaata tafarxu bi xablillah ñun ñëpp ci buumu yàlla gi la ñuy dellu yëf yi benn tool la rek bu ñuy bay sëriñ Touba dafa nekkee côté bii alaaji malik nii alaaji Abdoulaye Niass nii ñeneen ñi it comme même sos ñoom ñëpp kenn la ñuy bayal muy rasulillahi su mooy njaate gi ñëpp rasulillahi moom it kenn lay bayal muy subhanahu wa taala kon nga gis ne ñoom ñëpp ñoo bokkoon xencuwaayu suñu borom subhanahu wa taala euh, ba tax na euh, ñëw fi dafa war mboolem jullit wax naa ko ci yeneen site internet avant bi ma njëkkee dégg ne corona bi màggal gi du am ci wax man Serigne Cheikh Tidiane Niass def gis dofu maam xalifa bii maa tax woon ci wasaare ak yeneen sit wax ni màggal gi ku koy teree am sama bakkan lay jaar ba pare soog di musoog di ñàkk am ndax ci zahir danañ ko wax ci baatini danañ teew kurus ñaan ci ndax màggal gi ñàkk am lim mën a jural Sénégal ci musiba kenn xamul nu mu toll mu am it musiba yim mën a dindi Sénégal kenn xamul nu mu kon nit du nekk ku baax gis loolu ba pare di bàyyi màggal gi mu ñàkk am ndax ñun Sénégal jàmm rek leen yéene euh, Sëriñ tubaab bi mu jógee ci géej ga li waykat bi wax ay la mu daj ay la mu am waaye cëy la mu daj ndax yàlla ba mu waxee ne ñëw leen ngeen ngeen ngeen ut ma daf ne ngeen ànd ak seen ruuxu ak seen xel seen xol ak seen alal ak seeni doom ak seeni njaboot Serigne Touba jaayante lépp dugal ko ci buumu yàlla amul benn doom boo xam ne jur na ko sax te dippee dippeewu ko rasulillahi saalihu fadilu bachiru nangam fataahu abdourahman abdou sakour ba ci turu yàlla yi sax daf koy indiwaale maanaam rasulillahi ak yàlla dafa dem ba nga xam ne turu turu ay turi doomam sax ñoom ñaar la ko séddale utul ci intermédiaire ci kii sama xarit la ki sama doomu baay la kii nangam nëwut sax ci détail yooyu noonu détail bi mu duggoon rek mooy rasulillahi suñu borom subhanahu wa taala ñoo ko safoon te nag man kaana lillahi kaana laahu lahu yàlla kenn du ko guddil mu lay fay naaj amul fenn euh, damay wax ne nag wax ci sa mbaaxu jàmbur yàqul sa mbaax dara wax mbaax yi yàlla defal sëriñ Touba terewul yàlla may na mbaax yooyu xalifa Niass may ko ñeneen ak ñeneen waaye mbaaxu sëriñ Touba moo teew tey kon bu teewee dañuy génn ci diggante Tijaan ak Murit dugg ci diggante mbaax yi ko yàlla defal te mbaax yi nekkul daf koo nekkul daf koo bëgg rek am ko dañ koo tegal ay sart yu métti yoo xam ne néew na ñuñ ko doon tegal ñu ñu ñu jaar foofa bam demee ci ñaari fanu Ndakaaru yi wala ñett ya daj na lu métti. ba fa jógee ñu dugal ko ci bato ba daj na lu métti ba mu jógee ci bato ba ba mu jógee ci bato ba it comme euh, et cetera ak yeneen ak yeneen ba ñibbisee daj na yu metti yoo xam ni fa tabaarakallaahu kenn xamul loolu maanaam lu ko ko lu ko lu ko ko jaraloon ndeke woo yaay def doon wax ni ëllëg damaa bëgg loo xam ne suñ ne Ahmadul Bamba kenn du laajte kan mooy kooku fa tabaarakallaahu muy jëmm joo xam ne buñ doon def témoignage ci moom bu dee ki gàtt xel la sax mun na dem ba ne est-ce que kii nangam euh, te fekk yàlla xam na ne cofeel rek la ñuy wax ci moom ak mbaax lañ xam ci moom bu fekkee jàng nga tuuti rek ci li ñuy wax xam-xamu fiq tawxid ak yeneeni téere soo yëree téereem rek dang nga koy nangul immédiatement parce que li tax boo yëree téereem da nga koy nangul immédiatement rek mooy dafa am ñett façon façon taggin dafa am lu ñuy wax xasal mooy di tagg ki nga xam ne gisoo ko ak li ñuy wax damirul xaatam mooy dóor bal bi ci ki ngay gis ak li ñuy wax maanaam cax leeboon léeboon luppeen mooy lu ñëwagut lu ñëwagut nangam nagam ci ba ci yàgg boobu dafay dugg ci fële naxwu ba mooy grammaire ba Sëriñ tubaab maanaam fànn yëpp nag daf cee indi tagginu yonent bi sallallahu alayhi wasallam fànn yëpp daf ko cee indi fànn yëpp daf ko cee indi ba ci peesewaayu xam-xam foo peese rek def ci indi tagg tagg tagginu yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon kooku su ayee su amee màggal relation ak ak alaaji Abdoulaye suñ maam rafetoon foofu danañ fa leeral tuuti ndax temps du ñu ko may alaaji Abdoulaye Niass bokk ci waliwu yàlla yi nga xam ne kenn naatab lewut xutboom ak maqaamam waaye tey loolu taxut ñoo jug mbaaxi sëñ Touba moo ñu tax a jug euh, alaaji Abdoulaye Niass radiyallahu anhu kóllëre wanteeg way juru Cheikh Ahmadul Bamba xaadimul rasul ba ñoom ñaar ñu dem ba nga xam ne daf ne ko man Abdou wala yow diw su ku ci njëkk a génn àdduna na nga jàngal sa morom 41 yaasin ñii ne nekkul yaasin basmala la mais lu ci mënta xew rek waxante nañ ci loo xam ne génnul alquran maam alaaji yàlla def way juru Serigne Touba njëkk a génn àdduna maam alaaji yebal fa suma maam Khalifa Niass mooy taawam ba muy way juru Sidi Lamine Niass ak Ahmed xalifa mi ñëpp xam suma maam xalifa ñas radiallahu anhu ñëw fa jàng fa lu tolloog lim ba ko baayam joxoon bi muy ñibbi sëriñ Touba radiallahu anhu yëkkati tafsirul jalaalayni bu fekkee tafsirul jalaalayni boobu sëriñ Touba jox suma maam Alaaji Abdoulaye Niass tafsirul jalaalayni dafay nekk jamono ji posé waayu multi milliards parce que borom xam-xam soo koy may may ko ay milliards may ko téere bi gën a raar moo ko gënal nga may ko ay milliards te booba xam-xam lañ daan damoo ñoom mag ñi mu yëkkati téere bi jox ko ne ko boo àggee nga jox sa baay ne ko lii te dana neex yàlla waaye dana naqari saytaane su maam xalifa ñëw jox ko maam alaaja baayam ne ko sëriñ tubaab moo la ko jox ne ne lii te dana neex yàlla dana naqat seytaane mu ne dëgg-dëgg way jur wii nga doon jàngal ay yasin mënutoon a jur kudul ku mel nii ndax kii moo xam valeur ku baax ba yëkkati ku baax waaye kii de li ma defal ni muy alxuraan mënu ma koo tagg xalifa lu ma ko war a taggee il faut nga taggal ma ko maam xalifa di rabbu ay bayit Serigne Touba ba yow mi nga xam ne sax xamoo danga naan est ce que Serigne Touba nit la maam grade yi ko maam xalifa doon takkal pour wax la mag ñi maanaam ñoom kenn ku ci ne booy wax ci sa morom da ngay teggi grade yi la yàlla may nga jël grade yi la yàlla may ak yako yàlla may boolante jox ko ko loolu mooy mbaax maam xalifa tourné di wax sëñ Touba dem ba naan ko yow Serigne Cheikh Ahmadul Bamba alxuraan juy dox ci kaw suuf nga. bu dee ko gàttu xam nga xam nga nga ne waa sëñ Touba nu mu nekkee alxuraan alxuraan a gën a for sëñ Touba ma ne d'accord waaye it maanaam jikko mën naa gën a for yenn jikko yi ci yi ci yi ci alxuraan ndax lan ndax man mii sax maa gën maa gën abilab te abilab mi ngi ci biir alxuraan kon bul bul dugal foofu jugement bi jugement bi mooy jëmmu ji kii di wax ak mun na am ay jëmm yi ne ci biir alxuraan jëmm ji mu leen gën a for téeméer yoon kooku nag moo oote màggal bi màggal gi nag ay karaama feeñ ci bi ci jiitu mooy xalifaam bu tedd bi Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg te ak mboolem ku ne amin te ñuy seetaan euh, ak mboolem xalifa généraux yi nga xam ne ñu ngi ci yeneen gox yi nga xam ne fa tabaarakallaahu ñu ngi ko fay uutu wala ñu ngi fa nekkal diine bi màggal gi jublu see dafa oote journée xasida mu ne ñëw leen ngeen santale ma sama borom sama sama maam daf ne woon ngeen ñëw santale ko borom ci màggal gi waaye man nag dama fee def lu kenn mës a def ñëw leen ñu jàpp journée xasida ñu sant sama borom ci mbégte gi ma defal muy màggal gii bëgg a ñëw tey xéewal ma gis ko te gisagu leen ko te booba ñëpp naan màggal du am muy état muy muy saay-saay muy ñuy galgal muy ñeneen muy ñeneen ndax ñu ci ëpp xeex diine moo leen ñor kii nag maam def ko préparé ay baayam préparer ko kon moom prépar préparation yàlla moo ko gën a préparation àdduna mu gis ne préparation yàlla li mu ko mën a jural préparation àdduna xaaj xaajaatam mënu ko jural te ñoom luñ foor foor foor foor sëriñ bi ba ilal ëbët du sukk ci kanamu président wala ñu mel noonu di leen tàllal loxo ne la ñaanal leen ñemewuñ ko tëfli mukk te ku ci ñëw nay président France nay bu Amérique nay bu Sénégal nay bu Japon nay bu eh, Guinée ku ci ñëw mu tëfli la nga raayoo nga raayoo lu ko may loolu mooy barki maamam sëriñ Touba moo ko may kon bi bi loolu amee mu oote journée bi journée bi ñaari karaama feeñ bi ci jiitu nag dama koy dama koy tooñe benn sëtam muy sëñ Baara mu sëtu sëñ falu dama koy tooñ ma ne ko sa maam nag ba muy ñaan dafa war waroon a wax ne na taw bi arrêté fii ak màggal waaye nag moom ñaanu ñaanu ñaanu ñaanu xol la ñaan yàlla fekki sa ko ca lam ñaanoon waaw ma ne ko ba gëm naa te ba ma koy wax màggal gi ñëwagut gëm naa sax ba màggal boo amul sax dana taw dégg naa démb taw na waaw ak yeneen dëkk yu uutee pour wax la bim ne ñu ñëw ñu ñëw mu ne coow li li muy bari bëri ñaar lañ sañ mun taxaa ñaan jàll leen site internet yi na fi mbas mi wàññeeku yàlla wàcce fi ndoxam xéewal lii rek moo waral ñaan gi ñu màggal ci jàmm yi teg ci ñetti yëpp am na da koo wax tey suba asamaan si jooy ko fekk se ko ci li mu wax yàlla nangul ko ñaan gim ñaan ñu demaat ba ca suba ga ñu demaat ba ca suba ga yàlla dogal yàlla mi yàlla mi dara tëwut dogal moom Serigne Mountakha ñu commencé bu dee na cas yi 100 la ñu commencé naan cas yaa ngi ci 5 ñu ngi ci 10 ñu ngi ci 20 waaye yow mi gàtt xam yow mi gàtt xam-xam da ngay nekk nit koo xam ne maanaam li li baax ci yow bariwul nga ne wax ah état de mën na ko ko mën na koo wàññil cas yi parce que nii parce que naa ma ne la wax d'accord état mën na ko wàññil cas ndax yow ba tey yaa ngi yaa ngi ñëw ca ne yàlla wax ne maa kasta seen xol ba duñ gëm. se ñooñ nga bokk léegi nag xanaa nag nit lu mu gàtt xel gàtt xel mënta oo yàlla téléphone ne ko nag boo dimbale ma ngir yàlla ñu complot nga tawal ma xanaa nag nit mënu nit loolu dangay ngay jubóog sa borom ñaan ko rek mu tawal mu ñaan ko tey mu taw suba ñu ne déetawaay kaa yi commencé wàññeeku ñu ne déetawaay màggal gi yàlla def ci karaama ña wax ne màggal gi du am sax ñoo njëkk a ñëw sukk ci kanamu ci kanamu euh, xalifa bi mu ñaanal leen ñu ne sécurité du am wala leneen du am mu sécurité am ba doy ci ren ñu ne xéewal du am corona am xéewal gi am ba doy xam nga loolu lu muy firnde mooy ku nekk ci li nga nekk yàlla fekk ci la ci la nga war a nekk ñoom kilifa yi ci lii rek la ñu war a nekk mënuñoo nekk ci lu dul lii mooy lan mooy sëñ Touba bu mu leen gën a gore waxoon naa ko foofu laay tëjee sëñ Touba biñ ko yóbboo ci géej gi waxoon naa ko ci euh, sama kii at mi bi may def ma ne euh, daf ñu jàngal ñeent ñi dañoo jàngal ci àdduna loo xam ne. ba ilal abad du dañ muy sëñ Touba Cheikh Amar Fouti yu alaaji Malick alaaji Abdoulaye Niass ak mbooleem ñu ma limut nag ñu bokk ci ndax Sénégal réew mu métti la euh, sëñ Touba dañ koo jël yóbbu ko ci géej gi déglu bu baax li ma lay wax ñu ne ko yaane woon doo tooñ sa borom te doo tooñ sa morom na nga julli te boo julliwut tooñ sa borom boo boo julli ci gaal gi tooñ ñu mu jël mu këf der bi sànni ba muy dem lu mu amoon yaqin murid yi jël loolu mooy lan mooy nit lépp looy def na ci am yaqin mu la leeree ne lii du am ak du am am ca yaqin rek sa diggante sa borom yàlla fekk la ca mu sànni der ba am na ñu ne boo demee ci benn téere naar bu bu Mauritanie nee na bi mu commencé dox ci géej gi tànk yi commencé naa dugg ba ci dojoor bi waaye gëm na ne jiwul boromam lu mu koy lu mu koy lu mu koy fayee loolu te même bu ko boromam suuxalee ci géej gi sax yàlla ëppal na ko loolu mu ne naa dem rek mu kuus benn pas ñaari pas yàlla na ah ok kii nag dëggu na ci li mu wax. wax jibril na ko defal ndox mi muy kekk mu mu dox ci ndox mi sëgg sujjóot tuwaab yi ne tubaab yi ne lii karaamatul ay ne ñii li ne fitis la yàlla ne ah loolu la ñuy wax na sëggaat siggi mu sëggaat siggi jëbi taq suuf ñu ne ah lii du fitis parce que ci ndox la sëgg siggi jëbi taq suuf ndeke boobu sëñ tubaab mi ngi ñuy jàngal nañu jamono dana ñëw tubaab yi jël ma yëpp ma ci gaal danañ ñëwaat tey taxaw ne feebar bu ñuy wax corona dana dugg ci réew mi danañ leen teree màggal danañ leen tere julli waaye man mii nga xam ne yóbbu nañ ma ba ci géej may ma ma jox sama borom lim moom yéen bu ñu leen doon noot sax bu ma leen gën a gore yéen ñi nga xam ne man maa leen ilif waaw ku ñu yóbbu ba ci géej waa léegi yóbbu ci géej ak ko naa bu gën a métti ñaata ñaata man de ku ma yóbbu ci géej xalaatuma sànni ay der naan damay julli xalaatuma ko sama àdduna parce que moo ko defee du ma ñibbisi fa lañ may fekk yóbbu ma wala ñu wala ñu rob ma foofu rek ci géej ga keneen a keneen noonu loolu jàngal nañu ko beneen bi alaaji malik radiallahu anhu doon na julli fekk ay taalibeem di ko di ko rabal ay sàkket julli jot ñooñ julli wuñ mu ñëw ne leen bañ noddee ba fi ñuy jullee la ngeen jot a rabbu dindi leen ko ngeen dem julli ji ba pare kooka mi ngi leen di jàng mi ngi jàngalit ne lii dana ñëw bu ñëwee lu état rabbu teg ko ci ay pexe na ngeen ko rabarte xam ne lii lee lay junj ëllëg soo ma laajab laaj takk na xare dem dem ànd ak Maba Jaxu Ba xare ji ngir lan ngir lislaam jug jug jëm ca kaw mi ngi wane ne yu mel ni màggalu Tuubaa wala ziyaare wala gàmmu wala yu mel noonu bu ñëwee nangeen ngeen fexe ba état wala corona wala yu ñàkk faydi yi bum bu mu yàq seen diine kon ñu ngi ñu ngi ndokkeel suñ mbokk mbàkke mbàkke yi di wax ne délégation lew nañu seen bi ñii ñoo ci gën a tuuti ci ñi ñëw ñëw nañ ñëwee doole ci ndigalu xalifa bi muy Serigne Cheikh Tidiane xalifa ña sama maam yàlla na fi yàgg ta wér ak mboolem ku na amin di ndokkeel mbokkam mu baax mi Serigne Mountakha Bassirou nee na mu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér nee na mbooleem lu mu taxawee ci diina ji rek moom la ko defal defalu ko boppam nee na su fekkoon ne mbaax garaat lu ñuy takkal nit la dana xool garaatu colonel bi gën a fort mu takkal ko ko su doon ne état lañ koy joxee nit dana xool garaatu état bu gën a fort mu joxee ko ko su fekkoon ne mbaax téere la dana xool kaamilu alquran nga xam ne moo gën a for mbooloo mi kaamil mu teg ko ci loxoom ndax lu waral loolu mooy mbaax moo am diggante Touba ak Niassène leen xew fa lu dul mbaax ndax bim taxawee moom xalifa bi ubbi jumaa yi mu teewoon ñu bari mu taxaw ne damay julli ji jumaa même dañ may tëj sax man Cheikh Tidiane danaa julli ji jumaa. xaa bokk na ci njëkko njëkko oo remercier ko ne ko lii diine nga ko defal jërëjëf. mbooleem koo xam ne mbàkke mbàkke leen nekk fii Touba yëkkati na téléphone am xalifa bi wala ñu sës si xalifa bi remercier leen ne leen jërë ngeen jëf lii diine ngeen ko defal ziyaare bi ay oto ay motaar ay nangam lañ jógee Touba ñëw fekkele sa ñu waaye ñooñ buñ ñëwut même buñ ñëwutoon sax ñun ñëw dañoo war waxuma ba bañ ñëwee ndax ku la defal ak mbaax mbaax rek nga ko mën a sante man nag maa ngi soog di féex jamono ji ndax dama doon wax ni fekk màggal gi amul du ma féex ci ñaar rek ci zahir ak ci wax nañ ba àdduna bi yëpp dégguñu boo demee ci tiktok yeeg ci xaw ma lan garaam nu mu tudd Instagram yeeg nangam euh, euh, kii beneen bi xaw ma ko Facebook baag yooyu boo fa demee yëpp dafa fees dal ngir mbaax yi ñu daan wax tey olof Ndiaye nag def ne seentum asamaan jarul buuxante màggal gi dana am ak du am dañoo bëri woon wax di wax rek waaye sëñ Tuubaa liggéeyalut yàlla lu muy oote ab màggalam kenn di ko esek liggéeyalul loolu yàlla te du ko te doo ko mës a dégg ba mu am naaw nag euh, Màggalu Tuubaa échec na amul ren ba mbaam naaw doo ko déggati te doo ko dégg li waral loolu dama koy wax dama ne nit da ngay am déggu ak fulla murid li ñu ma neexee mooy dañoo am dëggu am fulla am ak taalibe nit danga ngaa war a am ak taalibe taalibe googu mu si ñoom ba fees dal di sant it fi dal nii ah mënuñoo wax ba jeexal te santuñ leen. ndax wax dëgg neex yàlla def nañ ñu comme ay mbake mbàkke yu fi ñëw muy Adja Lalla ak mboolem ñoo xam ne ñu ngi ci kër gi di ay njabootam taxawu nañ ñu euh, gis nañ ne daal ne sëtu El Hadj Abdoulaye Niass moo ñëw seen kër waaye jàppewuñ wuñ sëtu El Hadj Abdoulaye Niass waaye ay doomi sëñ Touba sax lañ ñu jàppee wala ñu jàppee ñu jëmm ji sax donte matee wuñ ko loolu nag sant yàlla la bernde yi bernde ëpp na délégation bi maa ngi ànd ak sama rakk Serigne Babacar Ibnu Cheikh Tidiane di sama rakk. di sët ci xalifa bi di ko tedd ca pay ba suma jur Serigne Maxtaar moom laa waroon a njëkkee waaye di sama lépp it moom it euh, di doom ci Aliou Yaama Ñas Aliou di doom ci euh, Aliou Aminta Aliou Aminta di doom ci El Hadj Abdoulaye Ñas kon moom tamit fa tabaarakallaahu ñëw na Serigne Abdoulaye ñëw na di sët ci maam xalifa moom tamit ak ñi nga xam ne mënuñ leen a lim génn nañ dem ci yeneen yeneen kër yi ñoom tamit parce que dañoo tasaaroo kenn ku ci nekk da xool ñi nga mën a jël ñu jël leen. ñi ngi ñaan képp ku ñëw ci màggal gii yàlla yàlla faj ci soxla képp ku ci def dërëm incha allah bi xawlilaay waxoo ci déwén yàlla nga mën junneem si barkeb leerub màggal gi si barkeb leerub borom màggal gi si barkeb leerub yontu bi sallallahu alayhi mi nga xam ne ñun ñëpp moom la ñuy bàyyal di am mbégte ak kontante di wax ne mbokk li rek la mënal mbokkam ñu ngi sant di waxee xol di bëgg ndax wax dëgg ne yàlla Touba daal inte tuuba ilallahi faqad saxat xuluubukuma rek daal tuuba daal dëkk bu tedd la boo xam ne alxuraan indi na ko miraaran wa takraaran eh, mu nuru mu nuru tur wi rédigé bi maanaam mooy xeet bi nuru xeet bi encore muy muridullahi man tijaan bi mu may neex mooy may naqat dama cay jaar mooy mooy mooy ñu nam ma jëm ca yàlla eh, fa tabaarakallaahu keneen kiit mu lay neex mu lay naqat yi da ngay jaar ca tur woo muy ke nam ma jëm ca yàlla fa tabaarakallaahu kon bég nañ di jël suñu ziar di ko teg ci loxo Serigne bas Abdou Khadir mi nga xam ne mooy porte parole kullu murit mu tegal ñu ko ci loxo wayjuram mu tedd wa wala ci loxo xalifaam bu tedd boobu muy Serigne Mountakha Bachirou ne ko mbooleem lew nañu seen rek ñëw nañ ànd ak ñëwu xol ak ñëwu kontaan ak ñëwu mbégte di wax ne sek année it nii la incha allah bi xawlilaa wa xóoti màggal gi daal bu jublisee danañ ci jàpp ci zahir ak ci baatin buñ ko yëgee ñoom ak buñ ko yëgul nag ndax lu ñu war lañ def ñun ndax bu ziyaara bi jotee ñu def lu ko raw ñoom tamit ñi ngi sant mboolem si di fi ñëw di leen gërëm di leen xamal ne liggéey bi rafet na yal na yàlla yokku man-man gi ak kartan gi yal na leen yàlla fay ci maqaamab sëriñ Touba bi yàlla dëgërël site bi dëgëral kartan bi ci barkeb alquran barke salaatul fatihi wa ma zalika la bi aziz wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokk seen xarit sëriñ Cheikh Tidiane Niass fii ci Touba màggal 2021 jërë ngeen jëf safar terooti na ay sunu deret yëngooti na sunu sidit yëngooti na ñu jóg di way sang safar terooti na sunu deret yëngooti na sunuy sidit yëngooti na bu ñu jóg di way sang